te yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi siyaare bu baax a baax mboolem kilifa diine yëpp euh, di siyaare mboolem koo xam ne rek day seetaan Allô Sénégal 7TV di leen siyaare euh, Kajoor ak Pape ak soxna Aïssa ak mboolem équipe waa 7TV ak sunu waajur wu jigéen soxna Xari ak mbooleem rek soppee Mouhamadou Lamine Fawzeyni borom secret yi. Fawzeyni dalal ak jàmm ñu dugg rek ci secret yi tey eh, yan secret ngay jox mbokk yi ko defee ñu daal di koy. partage waaw day tey dama bëgg a dimbali ñi nga xam ni yàlla dafa dogal ñuy dem ci géej gi di wut ay jën. di ay jën. nappkat yi waaw maanaam mool yi waaw. Mm-hmm. ndax ñoom dañuy sàkku ñu dimbali leen ci secret boo xam ne bu nu rëbbee maanaam du nu sooy. man am ñoom laay dimbali sax waaye sénégalais yëpp laay dimbali ndax néew na sénégalais boo xam ne maanaam mën naa toog ñaari fan lekkul ceebu jën kon ñoom ñu koy wuti nag luy tax la ñuy wuti yomb su ma ko defee maa ngi dinaa dimbali ñëpp képp koo xam ne rek maanaam nappukan nga di dem ci géej gi te bañ di sooy bëgg suñu borom di la wër wërsëgale jën dangay bind la mu xana jaxadin la mu xana jaxadin nga bind ko 913 soo ko bindee 913 nga def ko téere takk ko ci mbaal mi mbaal moomu jën du ko romb maanaam day attiré ay jën soo bindee la mu xana jaxadin 913 def ko téere takk ko ci mbaal waaye bala nga koo def téere da nga bala nga koo aw da nga ciy da nga jiital Euh, toile ba nga xam ne du mën a tooy bu defee ba nga xam ne ndox du ko mën a jaar fenn nga fexe mu nekk ci gaal gi mu nekk ci mbaal mi maanaam ni lessier di xëcce weñ noonu lay xëcce jën yi ñu ñëw ci mbaal gi ah, loolu am loolu moom maa ngi ciy dimbali ñi nga xam ne ay nappkat la mm-hmm. beneen bi nga topp bi ci topp bi nga xam ni moo gën a efficace ci wàllu nappkat yi euh, soo bindee fii jii di ma nga ca tabat ya nga bind ko mille cent onze mille cent onze mille cent onze fii jiidiha fii jiidiha ba muy mille cent onze nga wut mille cent onze xobi siddéem di wàññi xob yi ba mu mat mille cent onze xob yooyu nga weer ko ba mu wow su ko defee nga wal ko sunguf nga xool xeetu jën bi nga soxla façon jën bi nga soxla nga wut xam yaxu jën boobu moo xam coof la moo xam soppaan la moo xam sëdd la moo xam yaboy la moo xam yawal la ci jën yawal bariwul ci géej léegi moo xam warañ la moo xam jarañ nga bëgg moo xam ngon nga bëgg moo xam saaka nga bëgg moo xam jaay nga bëgg ba ci jënu coof nga xam ni sax maanaam jënu xeer la lu bari ci biir xeer yi lay lay làqatu nappkat di neen bokk na ci jën yi gën a naqaree jàpp xeetu jën boo soxla rek yaxu jën boobu ngay wut boo ko defee yaxu jën bi nga lakk ko ba mu xëm téere bi nga xam ne bindoon nga ci mille cent onze fii jiidiha nga wut ndox mu bari xooj ko ci léegi sunguf si nga xam ni mooy mille cent onze mille cent onze xobi siddéem yi sungu soosu nga sotti nga sotti ko ci ndox mi ndox moom muy saafara si léegi yaxi jën yi nga xam ni nag moom nga lakkoon moom nga soxla ba dajale ko ba lakk ko lakke xamit woowu nga sotti ko ci saafara si maa ngi giñ ci yàlla saafara soosu ñiy dem ci géej gi ñëpp ñiy dem ci mbaal mi yëpp di mbaali équipe bi nga xam ne ñoo dugg ci gaal gi di mbaali ñoom ñëpp buñ ko sangoo yuus ko ci mbaal gi siddéem ni muy rombee ni muy def lu ko romb mu jàpp ko muy toile muy nit kuy romb noonu lay rombe mboole noonu lay jàppe mbooleem jën boo xam ne da ko romb xam nga garabu siddéem moom boo gisee jàll bi lu ko romb rek mu téeku boo ko defee maanaam jën bi ngay wuti nag moom jën bi nga xam ne moom nga lakk yaa xam def ko boole ko ci saafara si maam jën boobu moom di nga ko am ba doyal ndawal moom di ko am suñu borom dina la wër wërsëgale jën loolu xam naa gars yi na ni sëñ bi fu mu jëlee turu jën yi man toog naa ay at yoo xam ni ñaanaluma ku demul géej ñu may ñaanal maa ngi siyaare waa Kayar ñoom ñëpp géej la ñuy dem. ñoo ngay jàpp man sama firigo bi su ne day fees dell ki jën. Ah. ndax bu ñuy ñëw ci man dañ may indil ay jën rek. beneen bi ci topp muy wàllu wërsëg. gars yi dañ koy sàkk fu mu toll donc sax ñu ngi koy joxe euh, li ci mel ni suratul waqiatu joxe waat na joxo joxe woon naa ko ki ñëwoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat ak ñàkk. ni ko amul lu mu mën a yore ak njabootam yonent bi da ko wax ni ko ndax moo mokkal nga suratul waqiatu mu ni ko mokkaluma ko de waaye xam naa ko yonent bi ni ko dee ko jàng suba ak ngoon boo ko dee saxal di ko jàng suba ak ngoon di nga dem ba dooroo sukkati ci kanamu kenn di ko laaj soxla. sa bopp. sunu borom dana la fajal saaju yëpp. Mm. kon loolu maa ngi koy tegtal nit ñi ñu koy jàng saaru koom la boroom xam-xam yëpp maase nan acteurs yëpp maase na ni mooy téere. mooy saar yu nga xam ni boo ko dee jëfandikoo ci yoon yu bari nag maam dangay am xaalis ma joxaat la ci beneen bu fekkee danga ko koo binde ba mu jeex mu sootul wàqaatu miim yépp nga tijj ko miim gu nekk nga def ci yaa xayu yaa tëjaat ko ba miim yépp jeex nga boole kook sungufu xaalis boole kook sungufu or boole kook parfum bari walingel damaa jub parfum maawlu wird ak bali welingel bu ko defee nga def ko saafara sangoo ko ñetti fan fan yooyu dinga nga di di di ay ay somme yu am solo fan yooyu nga sangoo moom maanaam di nga am xaalis boo demee nag ba euh, ba nga xam ni saafara si jeexital na ci yow nga yeesalaat ko bu fekkee da nga koo dëkkoo da ngay jaaxal sax say dëkkandoo dan naan ah. kii fan lay jële xaalis su ko defee sama classe gi ñàkk maandu ne commencé na jaay dorog waaw tàmbali naan naan fan lay jële xaalis ndax suñu borom dafa wax ni rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayri faqir suñ borom daa mën a maye dañu man yàlla waxtu wu nekk waxtu fajar wu nekk damay duy sama ñaari loxo ba mu fees dell ak xéewal ma wàcce ci asamaan si gën a suufee mm. yàkkamti ko ma ñaan ba ma may la ah. kuy nelaw de du yi milliards yi ñu yor mm. ak somme yi ñu denc ci banque bi ak seen oto yu rafet bi mu yem kenn suñ borom mi koy joxe ba tey mi ngi lu amagul borom te doyewu ko dara waaw oustaz. waaw ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan. Mhm. Mhm. dara baax walla kii euh, lan la ci lan mooy solo xol bu rafet si kiy ñaan c'est-à-dire que euh, sama classe gi nga xam ne ñëpp laa yéene musiba. Mhm. ba pare man ma bëgg man ma nekk si jàmm. loolu aussi ban ban mbir la noonu loolu loo ci mën a. waaw xam nga. maanaam ci ñaan yi ngay ñaan nii ki koy ki ki ñu koy jagleel mu bëgg ci sukkandiku ba noppi moom. ci biir xolam daanaka mu ngi mel ni sama biir xol bi waa xam nga suñu borom subhaanahu wa taala amul sax ku mu mayul mhm. ndax koo gis rek yàlla may na ko mhm. waaye may ni ñoo wute may ni ñoo ëppande suñu borom dafa wax nii ñi may may ci seen yitte wala aajo yi ñuy sàkku mooy ñi nga xam ni dan maa dan maa ragal ak ñi nga xam ni te ku ragal yàlla danga raxas sa xol ndax xol bu sell mooy ragal yàlla mhm. premièrement li nga yéene sa bopp war nga koo yéene jaam ñëpp fu ne màndargay ñaankat war te bëgg nit ñi am problème di ñëw ci moom ngir aajoom di faj bu ko nit ñi ñaanloo da na war a ñaanal bu ko nit ñi ñaanloowul da leen war a ñaanal il faut sa xol sell sunu borom doog laa may. d'accord il faut waxoon naa ko fi li ngay lekk di lew sunu borom doog laa may. il faut bërëb ba ngay ñaane tamit di laab sunu borom doog laa may. beneen bi nga xam ni moo ci topp ci wàllu secret yi suratul waqiatu quatre-vingt-neuf ñaari neuf ñaata la boo ko boole ah ñaari neuf ah, ñaari neuf boo ko bindee boole ko quatre-vingt-dix-neuf quatre vingt aaya la suratul waqiatu quatre-vingt-dix-neuf aaya la léegi quatre-vingt-dix-neuf aaya da wut quatre-vingt-dix-neuf xobi neew léegi xob wu nekk. xam waaw mhm. ah, xob yi day yaatu nii. xob wu nekk nga bind ci benn kii rek demal jembere. nga bind ci benn aaya c'est la. am na foofu. waaw bëri na fa torop sax ko defee da wut quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-neuf xobi new ak quatre-vingt-dix-neuf euh, nga xam ni aaya yooyu léegi bu nekk nga bind ko ci benn xobi new léegi xob woo bind nga bind nga tànn ci turu yàlla yu sell yi. bind ci tamit benn tur yàlla maanaam xoy boo ci bindee aaya aaya bu nekk ci wàqnaatu dañ ciy bind benn tur yàlla léegi bu xob yi jeex quatre vingt dix xob yi buy jeex quatre-vingt-dix-neuf aaya yi ci lay jeex léegi xob bu nekk def nga ci benn tur yàlla loolu nga xooj ko xàmb def ko xàmb sangoo ko ñetti fan loolu boo ko defee suñu borom dana la wërsëgal dana tijji sa bunti wërsëg yépp hmm, am na solo waaw fi may mujjee muy faatixatul kitaab muy alhamdulilahi rabbil alamin soo ko bindee aaya boo bind nga bind rabba rabbana iftax naa baynana baynana rabbana iftax naa rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul faatixin waaw noonu la hmm. rabbana iftax baynana wa baynana xawmi bil xaqi wa anta xayrul faatixin mu ngi ci sóoratul laxraaf aaya boo bind ci faatixa rek loolu ngay bind aaya boo bind ci faatixa rek nga bind loolu su ko defee nga bind faatixa bu muy juróom-ñaari yoon mais noonu nga koy binde nga boole ko xasitu lawbe xasitu menuisier nga lakk loolu bu mu xam def ko ci biir saafara si boo ko sangoo maanaam dootoo lijjanteeti lu lu dëgër. léppay léppay doomu aadama yi doomu aadama yi dañ lay yéene alal ba paree dañ lay bëgg. maanaam dafa ànd ak bayra boo xamante ne ku la gis dalay yéene alal yéene la léppam. am na solo am na jaaro xaalis boo xam ne bu ci àndee nag day gën a am doole muy jaaro samsu wal xamar foofu la ñuy wàccee sunu kàddu. Euh, di jaajëfal mboolem ñuy seetaan émission bi euh, di nuyu bu baax a baax baax yaay euh, nekk fii euh, marché bu bees tournal marché bu bees hmm. weer yi weer yi dafa di may takk yëpp moom hmm. a koy yox àddiya dina ko baax waaw ah, dinañ dinañ dinañ dem parce que baax ak xaalim couture sama tailleur bi may ñawal hmm. moom dinañ dem ak ak Muntaxa provocatrice quoi provocatrice sax euh, da nga ne da nga yaay ñaanal pêcheur kayaar yi. Mhm. mais mais nan ngay justifier euh, le fait que pêcheur kayaar yi ak géej ndar yi y' trois mois ñu doon euh, xeex ba ñu euh, ba ñu lakkat parce que dañoo ñàkk ay jën. waaw xam nga loolu bi ma ko yëgee dama am lu ma metti lool waaw. mais noo ko justifier la na ma ña ma dégg ñi ni dañ cee gaañu. Hmm. te te te te coow wala jafe-jafe kenn du ko fajee xeex. ki man a ki man a ki mën a xeex dëgg la muy la muy xeex dana ko xeex te du xeex du xuloo ndax bu fekkee da nga am lu la naqari ci sa liggéey boo woowee ku mel ni sëriñ Mouhamadou Lamine la bi borom secret yi. bi baaxul secret yi man man man man mën naa toog fu ma toog fay coow li. wallaay asim coow mën naa rëy lool ba jaaxal ñu bari man ma toog fay ko. dama koy fayee nag. Euh, fa am xeeti liggéey boo xam ni soo ko bindee ci salaamun xawlan min rabbi rahim moom tasal yow ma ayyuhal mujrimuuna alaa maa ahada ilaykum yaa banii aadama ma nga ci sóoratu yaasin léegi am naa ci liggéey boo xam ne su ma ko liggéeyee su ma la ko joxee defal saafara laa koy def jox la ko léegi dangay wàqi kàmb ba mu xóot nga daal di wut matt def ko ca kàmb ga léegi nga taal matt mi ba mu boy ba xam ne tàkk na bu baax a baax nga jël saafara si ma la jox sotti ko ci fayee ko ko. kaw la fay boo noppee nga suul ko wallahi xasim kenn doo ci coono mu rëy rëy nag waaw bu ko defee da ngay jël juróom-ñaari galaas nga def ko fa doo kaa suul kenn dootu ci tudde dara jërëjëf alors merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggatoo ah temps bi jeex na ah Pape li ngay wax ak lii ñuy jàngale c'est diamétralement ay ayca ah, ah ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi waaw maa ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké dafa woote bis bu mag mhm. suba muy bisub xasida an mu jot la koy woote bu wootee bisu Baye yi ñu sikar dajaloo fa sikar tudd yàlla mhm. waa bu bis ba delsee wala bu delsewaatee mu woote bis boo xamante ne bis bu ñuy tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la woo ci mbokk mbokki jullit yëpp woo ci mboolem jullit yëpp woo ci jàngkatu xasida yëpp ñu war cee def ay berne di ci jàng xasida di ñaan réew mi jubluwu ci nag lu ñaan ci réew mi réew mi am jàmm ndax am réew ñeen fukki ñeen fukki ñeen fukki nit rek fu mu dajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ñeen fukki fu mu dajaloo bu ñëpp ñaanee yàlla du gàntu ñëpp mm-hmm. ay junni junni nit dajaloo fa jàng alxuraan jàng xasida weer di ay salaatu ala nabi ñaan ci Sénégal jàmm kon Cheikh Mouhamadul taxaa maa ngi ñaan yàlla suñ suñu borom guddal aw fanam te it wéral ay cëram naalem ci diine yàlla na ko yàlla eggale moom ak sëñ Babacar si ak mboolem xalifa généraux yépp mm-hmm. foofu laay wàccee sama kàddu. am na solo li ñu ci ñaan ci jàmm yàlla na. jërëjëf yàlla na ci boole. amiin amiin amiin ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Pape merci beaucoup. merci félicitations à Dj Okocha mu nga xamante ne dañ ko def ministère des sports euh, fële si Nigéria mu nekkoon. léegi un jour de foot africain. sama numéro bi joxe moo ko gars yi nee naan secret yi am na ñoo xamante ne da di desee leer daal ñoom dañoo naqaree tettal. fu mu desee leer da nga may woo ci 78 530 69 81. mais ça veut dire que ma classe gi nga xam ne il faut expliquer longtemps pour ñu comprendre jaajëfal naa ñëpp. alors permettez-moi juste de souhaiter un joyeux anniversaire à Boris euh, l'éminent journaliste Boris ñu ngi souhaiter un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe matinale de leur longue vie santé de fer succès. une vie remplie d'amour et plein plein de bonnes ñu ngi lay souhaiter vraiment nga gudd fan wérgu yaram sans temps sans ordonnance comme ni ko xale yi di waxee merci à vous amis téléspectateurs rendez-vous à 10 ñu jox leen seen flash d'information et juste après ngeen ànd ak système Maria ci li nga xamante ni moo di la mi-journée l'avant-première moom ak ay ganam bu ko defee rek ñu gën a yaatal waxtaan wi ci li nga xamante ni moo di l'actualité quant à l'équipe matinale nous vous donnons rendez-vous ngeen jëf